barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa mi mun mujjal faydu jox ñu ñuy maata ba mu woowee rabboo borom mi daan ak boo xafeen bi nga xamee ne ma ngay ñaan borom waaw ci digg guddi ñaan koo xam ne daf koo yelu de digg guddi mooy waxtu ñaan te daf koo yelu itam xaaral wax moom Sakariya ne rabbi yow borom sama inni naka man waxaana door na alaf mboolem yax bi de min sama yax sawari nañ léegi màggat mana wasaala wesaaroo na raasu bi say fan ci béjaaro sama bopp wesaaroo naa béjaaro sama kawar yëpp weex léegi wala ma akun te nekkuma rabbi ya borom sama saqee ndaaji pexaadi di doxaay ka ci ñaan sa te li ci sama dundum yëpp musuma laa ñaan ñàkk la ma ñaan léegi nag màggat naa béjaar naa ñaan loolu mooy man lay ñaan way nii te naka man xiftu ragal na ma al ma aliya bay taxaya min waraayi ci gannaaw sama ragal naa ma dee te bàyyiwuma doom ju ma dann xanaa sama doomi bay tax yi ma xam rek laaj sànq ñoom diine ji de loolu laa gis ci ñoom wakaana te nekk na imraati jabar sama àqalante aji jéemeel sama sama jabar dafa jéemeel ma sa jur waaye yàlla nga may di ñeyal ma mi fi yow wàllu yoon borom njëriñ fi ñu dana mu dañu ma léegi nag jabar tan ñu jërmel yëpp maa ngi lay ñaan rek ma may doom borom ñu ma dana waaye risu samay dana binaari yaqooba ci ñoom yaqooba ba dañu dañu sama xam-xam dañu xam-xam sama maam yaqooba kon yàlla def ko rabbi borom sama rabbi mu di ñu dem fa yow te sama doom jooju ma lay ñaan yalla ko def muy doom ju baax yo xamne dañ ko gërëm yalla daal ñu ñaanal yermane jàngoo ñu ne ko yaa Zakariya yow Zakariya innaa naka nu bashiruka danu bégal la bi quraanin ci karo daga jib doom ju góor ismuhu turam Yaxya Yaxya la sa doom jooju nga fas am la ko Yàlla tudde tudde nañ ko Yaxya ndax la nga xam ne ruum ak yaram dund na ci moom gannaaw bu ñu deewoon wala na Yàlla def mu dara ñëw ko min xam ni jot sa meen ak aw turandoo de mas daa am turandoo jaar ne ku tudde Yaxya kenn su ko gisee ci moom lañ ko tàmbalee gisee ñaan na doom yàlla dig na ko ne nangul na ko ñaan doomu aadama gën a yàkkamti ci lu baax lu mu bëgg ba ko yàlla ne nangu naa sa ñaan da nga am doom ji tudde Yaxya xaaral mu rabbi yow borom sama am na yakunu mu nakay nekk ni ñeen ma xulaa mun aw fero wa kaan te nekk imraa bi jabar sama axira ndi ay jéemen waxat balaxtu te jot naa meen ki bari ci mat ba tiyan ab dayo moo naka laay jure doom man sama jabar jër nañ la mës a jur doom nga xam ne juróom-ñeent fukki mës la am doom maanaam naa téeméeri at ak ñaar fukk ñun mës ñoo am doom ñaari màggat yu mës la am doom ba xëy màggat yi nii naka la ñuy jure doom te li nga xam ne mooy xaalis mooy jigéen soo amee ñeent fukki ak juróom dootu jur doom góore góor gi dañuy xaar saab bi ci jigéen waaye ñoom ñëpp ku ci ne bu màggatee rek ngir tam dafay daal di taxaw ñii dayal ngir li mën nañ ko bàyyi ak borom bi nga xam ne moo ko dayal ndaxte moom dayalal na ko boppam am na yoo xam ne jigéen ci àgg dootoo jur am na góor gu ci àgg dootoo jur moo tax de Zakariya àgg na ci at yoo xam ne bu doon jur sax bu ci àggee dootu jur saka mës da am doom far jabaram àgg na ci at yoo xam ne jigéen ci àgg dootoo jur su doon jur foofu parce que boo xamee naka njëkk dafa jër mën far bii tumuranke nag naka la ñuy ama doom xaala wax yàlla ne ko mbir mu doy c'est-à-dire naka ma la doon mbir mu ni ma la wax la dinaa génne doom ci seen diggante yéen ñaari màggat yooyu de ah la wax la bu ko faram sa woo ay yu ma jàppandi la aree man génne doom ci ñaari màggat kooku man lu ma jàppandi la man yàlla delloo kat delloo kattanal booloo Sakariya ci doon góor gi ubbi woom ak jigéen bi nga xam ne moom itam màggatoon na booroo moom tëju waxat xalaatu ko bindoon naa la min xam ne njëkk wala mu takku ne nekk loolu seen di dara buntu mu ranke loolu bindoon naa la tamit daa nekk dara xanaa loolu gën a jafe bindoo ñaari màggal mu daal di ñaan nag xaaral wax rabbi yow borom sama yàlla yàlla nga def dee ñeel ma aaya kan mandargam déwut ak jabar sama yàkkam ci na nag mu ne yàlla yàlla nga ma xamal waaye nag ma jox mandarga moo xam ne su sama jabar mbir rek danaa xam ne yomb na xaaral mu wax moom yàlla ne ko aayatu ko mandargaal am naa tukkandi moom mooy bu wax naa ko nii ñëwee laa ko day wax ni yëpp guddi ko bés boo xamee ne lu mooy mooy mandargam am ba jabaram de sa wéyam bi ñu ñëwee xamoo yëpp guddi yu mat sëkk yoo xam ne Sakariya dina ko toog dina wax ak ñu ne ba mu toolee ba njib ma feeñu ko mu xëy rek lu mën da ba xaraja tam génn ala xaw ma yi jënd tam mu ñëw miiraab bi ci kër miiraabam jàkka jëre taxawaay tamit ñu jiite leen jëm ci ñoo xam ne tey bu leen gis kat ñoo julli leen ba nga xamee ne xëy bu ko defoon julli rek waxaa seen ngoon subaa ngoon moo doon seen faratay julli yaari bu subaa bu ngoonee julli leen rek waaw moom daal di daal di wéet ci néegam xalwaam ba muy jaamu yàlla ca ca ndax dañ ko ne woon naka ca Saawa Al Imraan soo lottee ci wax ak nit ñi rek dee tudd sa borom tudd la borom xam-xam yi balaloo xalway ñetti fan ñetti guddi Zakariya moo yar Mariam Mariam bintu Imraan Mariam nag yaayam ak jabari Zakariya yaari mbokk lañ jabari Zakariya mooy tantay Mariam yooyu yaayi Isa ba nga xamee ne na yàlla doom te doom ju góor la ñaan doom yu góor yi liggéey ca nekk ay jaamukati yàlla ne ca jàkka ja ca Baytul Maqdis ñoom la gisoon soppa am doom ju ca bokk mu ñaan yàlla doom yàlla may ko Mariam muy doom ju jigéen waaye gis nga itte saalihiina yi ba doom ju doom jim jur jigéen la waaye melaw góor la amee de ba yàlla ci góor ñi la ko dimaale wa kaanat minal qaanitiin la la wax ci xam ca saa saaru tahrim wax la insha allah ba nga xamee ne Zakariya moo ko yar denc ko ca miiraabam jàkka ja moom rek ay dugg fi di ko leyal di ko nangal di ko indi di mu jiwoo mas ta góor moom Mariam ba ñu mu Sakariya duggaat ci néeg Mariam bu dee waxtu noor mu fekk fa meññeetam nawet bu dee waxtu nawet mu fekk fa meññeetam noor mu ne ko lii mu ne ko fa sama borom la bàyyi ko karaamay wali yàlla ku ko weddi rek tam la nga alquran ak loo ëpp juróomi téeméeri ak si yonul ak loo ëpp ñaar téeméeri ak alquran mu xam ne ki mën a wàcce meññet tam nawet ci noor mën a indi meññetam noor ci nawet mën naa jubloo màggat de mu dal di ñaan boromam doom dem ba mu ñaan doom Mariam la gisoon be doom ju mel ni Mariam la bëgg mu ñaan yàlla may ko doom ju góor mu di Yaxya ba Yaxya ñëwee góor la de waaye doxul fi say benn yoon yàlla defut ci moom yàlla defut ci moom du koy fay naka la wéer wa fay dana waxa soorat ma la moom la baayam bët ba mu ñaan yàlla doom jigéen bi nitu na góor ndax góor la yaayam mébétoon góor gi jigéen ndax jigéen bi doom ju jigéen bi la baayam mébétoon mu dal di ëmb nag yaaya dal di ko wasin ba mu amee ñaari yàlla daal di ne yaa yaa yaa yaa yaa ku fi jàppal ci dara taw rek te xool dina la ko farluwee yàlla daal di wax wàcc ci moom mooy ñetti atam yonent yëpp ñeent fukki at dañuy am yàlla soog leen a yónni lu mooy yaa yaa moom yàlla ko yónni ci ñetti atam waaw tey naa jox nañu ko àll ku mu yónent ba sax yéen ñu ngi gën moom ndaw la de toll ci ñetti at rek yàlla yónni ko de waxamaanan te mu yërmande ñaan ñi ñu mën a naatu ke fi yàlla de yàlla def ko muy yërmaale ñeel ñëpp wa zakaatam day sarax ci ñoom wa kaan ne kon moom taqee ndi aji ragal yàlla de ku ragal la woon moom yaayaa de ku yàlla tey dañ def mës da def mooy mësu ko nit itam ba mu juddoo ñu daal di jox ak yonent muy wér rek di jaamu boromam koo gis yaayaa rek robañ baa nga ca ñoo xaw a insa moom yàlla daf ko bind ci jamaal foo ko gis rek ma ngay reer yaaya mu bind ko ci jalaal foo ko gis rek ma ngay jooy suñ dajee insa ne ko wattul sa bopp yow da ngaa mel ni ku naagu yërmande yàlla foo toll yaa ngi jooy rek te yàlla yërmande bi yàlla yaaya ne ko wattul sa bopp yow da ngaa mel ni ku wóoru jeex yàlla te yàlla kenn du ko wóoru mës ga mooy mës ga it yoo mooy mas naa dajeeg iblis fekk iblis mu taxaw mu ne ko noonu yàlla bi looy def fii mu ne ko ma pour nga laaj ma la ma bëgg a laaj mu ne ko ndax mas nga ma def ndax mas nga ma yàqal lu yàgg ne ko waaw am na benn bés nga am ay gan di di reer ak ñoom ma neex a reer ba fi yow ba nga regg da nga reer ba regg guddi keroog naa fi la war ci guddi da mut da ngay nelaw ba bët mu ko mas naa laa regaloo ba nga xam na nga da ko yor xam naa nelaw nga ci guddi ga ko geñ na ci yalla ne dootuma suur ba fa may dee mu ko may geñ na ci yalla yàlla ma laay bi mukk do waro Zakariya nag bu ne ya kay kay togal bëgg a doom ji mu toog waxtaan nak mom rek doom ja daw dem di wéer rek di jaamu boromam te Zakariya tawat nak ne yow sama borom man day ñaan na la doom da ba ma lay ñaan doom day doom ju ma wéttile taxon may ñaan doom waaye Yahya day wétali mu de yàlla ne ko seetal sa ñaan gi de ab lii wali yéen nga waxoon de ñaan la woon doomi kese doomi wali nga ñaanoon noonu la wali mel de duñ wétale kenn seen borom dana soxla ku wali yi ko rek am nga wétal jot wa baroon tamuy aji baax bi waale day jaari wajutam te moom Yahya ku baaxoon ci yaari wajutam la dana leen topp walam yakun nekku mu woon jabbaran di aji réy loon ak yéen nga aji mooy boromam du doon mukk ku rëy du doon mooy yàlla de wasalaamun mucc alayhi aji naa kala ci yaxya yow ma wulida yow ma wulida bés ko wa yow ma yamutu ak bés ba wulida ko mu aji dundee ñetti bés ñoo gën di xatar ci doomu aadama bés ba muy ak bés ba muy dee ak yàlla na ne am na mucc ci bésab am na mucc ci bésab te dana mucc ci bés bu muy dekk itam ca pencam yàlla de kooku moom mucc na wan faw barhaamu baun waraun alifun thumma ha mimun mu jël faydu tiijaan jox ñu ñuy naan